yi sëriñ bi nee na asalaamu taala wa barakaatuhu. nee na ngi sant mbooloo mi góor jigéen mag ak ndaw te di leen siyaare bu baax a baax. nee na bi moom kuy njee jiite ci maanaam settu Sëriñ Tuubaa yi fi teew ci jeetaay ji fi. ci jiital njabootu Serigne Abdou Lahad ak njabootu Serigne Mourtala Mbacké mu ngi leen di siyaare bu baax ak ahlu Tidiane alaaju kanji mi dëkk njaareem sëñ bi mu ngi lay siyaare bu baax te di sant bu baax ne di ñaan yàlla la fi yàlla yàggal. xalifa diigaan kim fi ebel di porte parole bi. sëñ bi nee na mu ngi lay siyaare bu baax. ne te di la sant bu baax. ne di ñaan yal na yàlla nangu liggéey gi. ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nee na di sant xalifa xalifa ga bu baax a baax. xam ne wootem bii mu woote te jii nag. mu tudde ko baat bi yàlla wax ci alquran ne wa axtasimo bi hablillahi jamian wala tafaraqu nee na lim jublu ci baat boobee ci woote bi ñu xam ne suñ boroom fam nekkoon nee na ba léegi mu nga fa nee na moom day poroxaan ba léegi yëgee na jàngaro jegay sax nee na yëgul ne jàngaro sax am na ci réew mi ndax tala taalif nee na nee na ndax taalif boobee sëñ Basiru doon jotle ngottaani Daaru Juuf nee na daf ko jëlee Daaru Juuf Kolda be Kolda. ba Diawbe. ba Diawbe. kooku te fan yooyee. nee na xaw naa doy waar lool. waaye in kun fa yakkoon da koo yoon. waaye moom nee na moom lu muy doxe rek mooy kun fa yakkoon. kon mu ngi nee na kon mu ngi sant ñëpp. baat lay. baat boobee nag nee na lim ci waroon a wax mel na ni. nee na daa ni taalif bi génne na lépp. ne boo déggee mu ne. sunu borom a in gasa baxdaar. ne boo déggee mu ne leen suñ borom def ko rapport jox rapport ak ne moo di. jumaay kër dafa bañ jul ay. ne de ko ne jumaay yëpp day juli nanu. ndax julaay waaye mu ne ñaari jumaayam i moom mi te wordal président rokeer xen nee na moom la benn wordal dugut nan doon julee rek lañuy julee kon te tax kon baat boobee waral mu ne suñu borom ne moo tax suñu borom tontu wa na suñ borom tontu ko ne ko loqalen na yow day ñaari mbir lan la joxoon waaye mbi'a ñetta na def nan ko ñett mbiran baatu lang na koy na baat boobee mm, bu ko ñaane ab yong a bug nga yet saaxe sax nee na ab yong sax bu bëggee naaw tiim dekkam sax kaa yen kaa nee na day daanu ci suuf eh, takk der lu bugg na maaro nee na takk der bu fi bëgg a bu ne a siwul wange nee na bu siwiluwut kaa kaa sax na kaa yen kaa nee na yor bu de oto wala leneen day daanu baata nang na nee na baatu kun googee. baat laa ilaha na ci baatum laa ilaha illallah. tey sunu ci lako suñu borom may. ko bisimilah rahmaani rahiim. ak baatu basmala di bisimilahi rahmaani kon kenn na kon loolee moo di jeetay ji. kilifa kilifa yi fi teew ñëpp. in mu ngi leen di jéglu bu baax. ndax in kat. ndax nee na moom kat. ñu lay doxa taalibe yi moo waxoon taalibe yi ne in de i maska weeyo nee na ñun dey maska wuñu axu maska una yit nee na ku maska wu yitam fat nu mbañtino nee na na ngeen ko tere ndax baat baat bismillah bismillah rahmaan rahim ndax baatu bismillahi eh, um mee bidong ñaar fukk nee na moom la fi def lu tollu ci ñaar fukki bidong ko yeru na nee na képp ku ko naan ku ne jàngaro ne mat këram nee jàngaro guy du la dal belay jege du la jege sax mu bëgg koy xoor na mu bëgg nag ku ne baale nga gàttin nen nee bu ko kenn gise nen xeefi ma leen nee xeebul kenn yiddi ma leen nee na werul kenn o ganga jumaay mbegaan nee boo gisee jumaam yi mu ye tejuñ leen kaam jeg baatu kun fa yakkoon nee suñ borom def ko jox baatu kun fa yakkoon te tax mbegaando moo tax juma yooyee tëjjuñ leen oxu jéem na maa rok nee na ku fi jéem a dugg ne waa na sa oto day daanu a refa nga avion ka yen bu dee avion moo naaw tiim ko day daanu kon kat gooye kene rek o tax kon nag gaay loolu rek a tax mu def lim def um bëgg koy no ando nee na mu bëgg nag ngeen xam ne kene lii xane taxee lii du tey rek la tey taxu ko de. fanweeri at fan léegi. nee na ci fanweeri at ba léegi. mu mos na meerook tare taleel choléra. nee feebar bu mos a ci dëkk bi rek muy kolora. kaam ñaan kaata. nee na da ñaan. soxna win we. nee na jox nit ñi. ma baatu bisimilah rahmaani rahiim. ci baatu bisimilah rahmaani rahiim. dal dal kee leen. bu ko defee du dal kenn. mu jamaano suñu ablaat mu jamaan suñu saaliw ba léegi. nee na ci jamono suñu saaliw ba léegi. kon xajab ba xam kon ba léegi. o nana nga mbooloo as na ne. boo déggee mbooloom ji. o masque la nga rafetee. nee na kenn jëli du masque takk ko. waxoo ref ku ci ne. kaa doy door ñaanal. ne dañoo doyloo ñaanam. léegi dal kenn. ku dara di dal amul du dal kenn. léegi dala dar ka. nee na kenn koo xam ne dara dana ko dal. ci feebar bi mu jangaro dal këram. nee na du am mukk du dal kenn. to kenn. loolee. kaam jaayantiin faroom. ne da koo jaayanteeg suñ borom. fa yonantani. ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ak xaadimu rasul. dafa danaata la tam. nee na mu tàmbel ko ko. kon kay. kon nag. te taxul. looloo tax. faale yim korola nee faale wut kolora faale iram mbas nee na benn mbas buy am faale wu ko. lu ki faale um. nee na moom daal lum faale muy. yoo am baatu kun fa yakul nee baat bi ko suñ borom jagle di kun fa yakul. kon kenn rek kon looloo doonoon woote bi. kon yaa sarooga ne kon yal na def jàmm. tarixa ke teew na wee fop. nee na mboolem tarixa yi fi teew yëpp. sant ay dem. nee na leen. xalifa diigaan. xalifa diigaan. alhaaji kanji. alhaaji kanji. Cheikh Mourtala. Cheikh moom sëñ Issa. sëñ Abdoulahat. sëñ Abdoulahat. sëñ Cheikh Abdoulahat. sëñ Cheikh Abdoulahat. sëñ Mourtala sëñ Fallu sëñ sëñ Mourtala sëñ Fallu. sëñ Mourtala mu sëñ Fallu. sëñ Ibra ndax sëñ Mourtala sëñ Mourtala. sëñ Mourtala mu sëñ Abo. moom sëñ. Abdoulahat moom sëñ Abdoulahat mooy sëñ Abdoulahat ñu santaanu nee na mu leen di sant tuleer sëñ Abo nee na ki nga xam ne moom la sëñ Abo Mbàkke yoni ñu santaano nee na mu ngi lay sant bu baax baato ngoy danano di la ko yokk a ñaanal sa na ko yàlla defal jàmm am abaat na fi a ciig yokk ko fan wu gudd na daraja yonent ci daraja yonent bi santay fop sant na ñëpp eh, daayira ne am naa sëñ Xaadim adoor daayira bi nga xam ne moom la sëñ Xaadim jiite eh, man jiitu eh, Babacar Faye njiital jawrin Babacar Tine en way santano paax sëñ bi nee na mu ngi leen di sant bu baax kon noon wene koy kon yéen ñii nag opulaane nee na pol ka lay le dafa wax ne moƴɗo moƴɗo ala laaranam nee na moƴƴo ala laaranam loolu la pol kon na noonu itam yéen itam nu nga ay kene nee na gis ngeen lii oxu bëgg naa liggéey nu mbind ku bëgg a liggéey ci kër gi kon nag kene o cheikh kon nag ab cheikh fo taalibe ak ak taalube. si sasa mi noonu. nee na sas nañu. nun nun daam na liggéeyam. nee na ñëpp jàpp ci liggéey bi. xoo jam na te. nee na képp ci jàpp. rëccu kii na xale. nee ko doo ko rëccu tey. kon tab yoo tey xalaat. kon nee na tab. lebal leen ci seen ñaq tabal leen ci seen alal. comme suñu xaadi mu xam ne. ma ngi fi. ote adoorun. nee moo ko jiite. kon nu góorgóorlu pa kon na ngeen góorgóorlu bu baax. naxa dénkaa noonu. nee na mu ngi leen di dénk. mbaa daxaroog. jaamu yàlla. góorgóorlu. góorgóorlu. wa waaroog. di jaamu yàlla. mbi a paax. di def lu baax. te moytuwoo pon. te moytuwoo lépp lu bon. mais xedaaroog. mu ngi ñaan ci yàlla. yaasarooga aara noonu. yàlla leen yàlla aar. ndiig na ne it. nawet gii ñu ne. mu ak ak jàmm faat fa jàmm mu àgg ak jàmm ci daraja yonent bi ci daraja barke xaadimu rasul ci barke Sëñ Fallu ci barke Sëñ Fallu ci barke Sëñ Fallu sëñ Fallou xane rek. ne tey jii sëñ Fallou. kaam lay na. daf koo wax ne. ba de. ne bul mu taw. Eh, xëy na naam na roog. nee ñaar. seedeel ma ci yàlla. baade. nee mu taw. baroo gayaa. nee na bengoon. soo soo koy. soo bu bu bu ngoonee nag. ndax mbooloo dana fa tàngaat. ndax mbooloo mi ñëpp ñi beeg jam. kon keene. te lay ma sëñ Fallou xale. moom la wax sëñ Fallou tey. ba foofu gar. nee bu ndox ñëw. ba mbooloo ne waat. ba mbooloo mi ñibbi.